maaleykum wa rahmatulah yéen yi ngi kon ngeen ànd ak seen mbokk Mahmadan Mbacké ci seen seen YouTube bi TV bi di sàkk ci yéen ñaan abonné te ñu ngi fii ci daara soxna mooy bintu man dafa am gone goo dafa wàcc ñu koy sa sargal ni wax soxna Kumba Jaam kon macha allah gone yaa ngi di ay di ay seen TV an ànd ak see seen mbokk ma ma Mahmadan Mbacké di PDC Ithima TV kon ñi ñooy gone yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji di daara joo xam ne daara ju am solo la eh, di jàngale eh, alxuraan ah eh, yar ak jàngale kon lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëli doon ci daara ji ñii nag ñooy ndeyu daara yi waaw ñooy ndeyu daara yi nga xam ne ñooy daara yi di jàngal ma ñooy ndeyu daara yi kii mooy ndeyu daara yu mag yi moo leen jiite di soxna Xadi Buso moom mii moo jiite daara kii mooy Serigne Ousmane Mbacke di borom këru tout soxna moom moom it jàpp na ci liggéey bu baax a baax kon dafa am goo xam ne dafa wàcc alxuraan da koy sa sargal